armeel yu ya nekkee ci dëkk bu seele bi di Touba dañu daan am jafe-jafe ci wàllum ndox ngir waajal néew yi nga xam ne ñoom lañu war a denc ci barab bi pexe yu ne nag daan nañ ko def. ba àgg nañ sax di wane ay nit ñoo xam ne dañu fee indi ay néew di jënd ay butéel wala ñuy jënd ay mbuusi ndox di ko waajale te loolu rafetut ci ab gis mu metti lool tiis lool waaye pexe nag benn amu ci woon mu dul di ñaan ay oto ndox ñoom ñii di ofoor di maaw rahmati di Touba ca kanam ku ci nekk. yónnee nga fi ay camions ndox ba tey. daayira Masaalikul Jinaan bi nga xam ne moo nekkee ci réewum France ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Toulouse jóg ànd ak daayira mu xàddamatul xidma bi nga xam ni ñoom ñooy saytu barab bi ñu fas yéene taxawal benn forage fii ci barab bi ngir jafe-jafe ndox gi nga xam ne moom moo fi amoon ñu mën koy saafara. yàlla dagal ñu wax ko sëriñ bi waaye kàddu ko sëriñ bi wax rek te lañ xamee ne woon liggéey bi moom sunu borom sottal na ko ba noppi ndax sëriñ bi dafa wax ne ah waaw loolu de moom xanaa. xale ci eggutoon sax waaye lu waroon a am bu yàgg la kon nag nañ leen wax ne am nañ ci ndigal waaye nag nañ leen ci soññ mu gaaw nañ leen ci soññ mu gaaw jooju gaaw googu mu tudd ci làmmiñam jàpp naa ne moo indi gaawaayu liggéey bi agsi fii sax. ginnaaw bu leen sëriñ bi joxee ndigal ñu fas yéene ñoom waa daayira Masaalikul Jinaan soobu ci liggéey bi fas ko yéene def ci diir bu gàtt. dëkk Toulouse dëkk xale yu am jom yu bëgg sëriñ Touba gëm sëriñ Touba doyloo sëriñ Touba rek yóbbu leen fa. sëriñ Tuubaa mi yor lépp yore jàng yore man yore xam-xam jox leen lépp ñu ni soxlawuñ ci dara te duñ ko jox kenn sëriñ tubaa la ñuy jox lépp di jàngatu di jàngatu ba day dégg daayiratu Muxaddamatul ma nekk ci liggéey bii nga xam ne bu fortu la ñu xam xel ni liggéeyal yàlla rek kay dëgg ci liggéey yàlla kenn mënu ko ku dul liggéeyal sëriñ tubaa dong ñu am xam-xam bi am man gi jaayante lépp ak sëriñ Tuubaa ñaan ndigal Moukhaddamatoul Khidma muy dox ba yegg ci moo Cheikh Mountakha Mbacké may leen ci ndigal ñoom ragal lu ci yoon wi ndax sëñ affaire mi ne suñu kanam mag ñu fopp jëkku ñu fopp mu ngi di taxaw ci naaj wi te ku ne xam ne amul jot kon ñoo ngi leen di nuyu ci baatu daayira Toulouse bi nga xamante ne moo nga warlu liggéey bi te yaakaar ci kenn ku dul Serigne Touba. waa Toulouse jóg jaayanteeg seexul xadim daayira bi demal leen ci seex Moodu Muntaxa bi ñu yeggee seex seex Muntaxa daf leen wax ne lii moom taw feex la joo xam ne xam naa sax moom loolu leen sëñ bi xaasala la rek waaye bu yàgg la woon waaye nag nañ ci gaaw nañ ci gaaw kon nag gaaw googu moom lay tëjee kàddu yi képp koo xam ne rek déggoon nga message boobu daayira bi mi ngi la ci woo joxe nañ compte yi joxe nañ compte yi ne France joxe nañ compte Orange Money yi gaaw googu nag bëgg nañ képp koo xam ne rek maanaam ba bàq bu tooy la lu ci waay jëf daal sëñ Tuubaa moo lay fayal boppam. liggéey bi ñoo ngi ko door ci dimanche bi dëppoog le 26 février 2023 mboolem kilifa yi nga xam ne teewoon nañ fa sant nañ bu baax a baax daayira Masaalikul Jinaan bu Toulouse ci seen farlu ak Pastef gi nga xam ne wane nañ ko ngir saafara jafe-jafe ji nga xam ni moo amoon ci barab bi. ndax loolu bàq ya fii dafa nekk ci zone boo xamante ne nii lu ñu naan zone déficitaire. ay forage naam wër nañ ko mais forage yi xaw nañ koo sori lu mel ni forage yu di lu mel ni forage yu Guy Mbind ak forage yu Ndaamaatul yaakaar naa ñoom ñoo wër li nga xamante ne mooy bàqee tiwo yooyu balaa moo agsi fii nii ci bërëb bi daanaka pression bi day wàññeeku moo tax nag lii nii bu amee dañ koy rafetlu ba tax nañ ñu nit aussi pare nañ tamit aussi pour gunge leen ci li nga xamante ne mooy liggéey bi ci wàllum technique ci wàllum leneen loo xamante ne nii vraiment suñu suñu domaine la pare nañ pour gunge leen ci. ñu sant bu baax. ci lu rafet lii ñu def di fàttali ne fii nag moom naka jëpp comme ni Bamba Sarr wax fii dafa nekk zone boo xam ne zone déficitaire la ndax tuyau bi ko njëkkoon a alimenté mu ngi jóge woon forage Daaru Xuddoon ci woon usine glace boobu ba léegi beneen tuyau duggaatu fi te yàgg na tuyau boobu ak foo koy seet sax am na foo xam ne ci biir kër la jaar kon dagg nañ ko dagg yu bëri yoo xam ne zone bi daanaka mënul am ndox OFOR jëloon na initiative pour indi fii ndox. defoon benn tuyau jëlee ko ci forage Tindodi bi malheureusement linéaire bi egsiwul woon fii ba xam ne dana mën a alimenter zone bi daal particulièrement Bakhio kon nag vraiment ñu ngi rafetlu lu mel nii turu sëñ Moustapha Dieng di leen gërëm di leen sant di xam ne lii moom maaw lañ ko defaral. itam dafay nekk loo xam ne nii ni ñuy wax euh, lank boo xam ne maire bi maire commune Touba jëloon na ko moom la ñu làq sàqami mooy lan bokk na fi mu ne nii ñu waroon a wut ay robine defaat ko fii ngir yokk kii bi pression ndox bi ndax gisoon nañ ne pression bi wàññiku na lool. bañ nekkoon ci waxtaan ngir war koo kii ba yaakaar naa ni budget ren bi bokkoon na ci nañ lañ war a mën a def ba dàq ya war a mën a am ndox am courant Moukhaddamatoul Khidma xam ne ay jafe am na ci wàllu ndox mu dajale euh, mbooloo mi nga xam ne ñoo bokk di liggéeyal sëriñ bi euh, ci waa France yi tey jël xalaat bi war a taxawal defal lii. kon loolu monsieur le maire dafa wax ne mu ngi ciy sant bu baax di ci gërëm bu baax. liggéeyub forage bi tàmbale nañ ko ñu fas yéene ko liggéey ci diggante bu gàtt. ndorteel liggéey bi ñu ngi ko amaloon ci njiital sëriñ Afe Bousso imam di jëwrin daayira Muxaddamatul Xidma ak maire bu Touba Abdoul Ahad Ka waa Ofor waa Maaw Rahmati ak yeneen kilifa yoo xamante ni ñëwoon nañ ànd ak ñoom liggéey bi. su ko defee nag li sëriñ bi digle ci ko liggéeyal muy inna alladina saarahu li xidmati fa lahumu diyaar wasal jannati ak lim liggéeyal digle ci ko liggéeyal ci fajuk aajo àddina ak alaxira wax di awaa ijil lazina daamu fi xidmati waxab lahum maraamu yàlla nañ ci daje ak ak ak moom ci ci liggéey bi